mooy bis bi jëkk ci weeru tamxarit nee na ku ci bind bismillahi rahmaani rahim cent téeméer yoon ak fukk ak ñett daat koy takk yàlla dana ko musal ci lépp lu bon lépp lu ñu taamuwut mook waa këram li fekk ña ngay dund yaa basmala cent treize ci bis bi njëkk ci weeru tamxarit téere boobu ñu daa faral di tudd muy tereb kanzun najaaxi wa surur indi na fa ne bis bu njëkk ci wéru tam xarit muy suba ku ci jàng rek ayatul kursi yi ñetti téeméer ak juróom benn fukk yoon 360 yoon bu ci nekk nag day ànd ak basmala benn yoon loolu nee na ko def yàlla dana ko musal ci seytaane ci kara ma nee na kaaraange gu ci seytaane تكنا شغني وفيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحد لول داي كوكو ديف بارينا اي نجاري لول يو خامني موني سوكو تاك موني سوكو الكرسي غا 360 بيس بي نيك ويرو تام خريط